du weeru koor de kooru sunna la sëñ tubaa jàpp ndar ba ndakaaru sëñ tubaa da koo taxaw ci saxaar gu ñu xam taxaw taxaw booba moteur amul da ngay xam saxaar gi muy daw ndar ba ndakaaru sëñ tubaa taxaw ko jàngonteeg coono yi ak tàngoor wi maanaam ak mar wi bi mu yëg si ndakaaru booba takku saani suuf keroog bi mu yëg see sëriñ bi nee na damaa toog yàgg ba mu benn benn tubaa ne ma mara bu kaay nee na mari bëri jëm ca moom foog na dama yóbbu ci barab ngeen ma dog sama koor waaw waaye jëm naag man ci néeg boo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba nee na xet gay bàyyikoo ci néeg bi jëm ci ci man xamal na ma ne néeg bi képp kuñ namu ceew noof laay duñ la fi tabbi waaye keroog laa xam ne nattu gu ma suñu borom nar a la néeg ba tubaab bi da koo liggéey ba mu toll ci jëmmi sëñ Tuubaa bi waaw tubaab da koo liggéey ba yem ci jëmmi sëñ Tuubaa mu liggéey ko ay rabbu fi muy wéeru fi muy teg ñaari tànk yi ak fi ku tiim moom sëñ bi ñu jël ko dugal ko ci néeg bi nee na bi ma tegee sama ndijoor sëñ Tuubaa nee na rabbu gaa ngi sar ma teg beneen bi rabbu gaa ngi sar wéeru nee na rabb yaa ngi may jam nee na li tolloog man rabb yaa ngi jam nee na biñ ba ma xëy néeg bi sëñ Tuubaa nee na rabb yaa ngi jam mënumaa toog ndeysaan ndeysaan ndeysaan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah